Euh, dafa sama benn suñu benn nijaay bu ko boole ak man pour mu ñëw ñu produire ko euh, jamono pour mu ñëw ñu produire ko euh, fekk boobu maa ngi woon Liberté 6 am na ma doon liggéeyal foofu mm-hmm. ci la ñëw dugal ko ci benn projet bi ñuy wax journal à paix affaire bi jàll yàlla def ni jour ma koy defaral micro bi rek euh, courant fii lu micro bi xaw a laal mu def énergie bu xaw a kii jaar ci man après ci laa ko jël quoi après bi ma ko jëlee ñu dawal tuuti ma def double production produire ko studio produire ko kër ga waaw comme nag euh, <laughs> Saint-Valentin bi la noonu la ñu gisante noonu laa ko jëlee noonu lañ ko noonu laa ko produire moo produire waat ko yàlla may ñu benn bant. bon naturellement xam nga euh, yàlla buy euh, tudd ay diggante fu ne la koy jaarale je m'attendais pas à ma marier ak non face wala donc. Ah, yàlla dama garaaw nag. waaw macha allah. donc donc si il est très fort. garaaw c'est un génie. Euh, yàlla def euh, ma bëgg ko mu bëgg ma mu nekk ni koo xamante ne bëggul caaxaan pareil aussi alors ñu dem euh, vraiment dëggal diggante bi si farat mu doon sama jëkkër si farat ak yàlla ak sama suma xam pour man daal lépp organisation la parce que boo nekkee sa kër kër ga la boo demee liggéey foofu bërëbu liggéeyukaay la suñ nekkee kër gi dañuy def li war a def demee liggéey ñu xam ne fii liggéey moo ñu fii indi loolu kese la organisation rek la daal. non non non man nag cokkaasu man kenn cokkaasu ma nag de fi ne nii ko si këru àdduna maa yor sama caractère bopp de ñemuñ maa cokkaas de. bon da wax da ngay wax gars ñu fi jot a nekk ñu ñëw jëm ko cokkaas comme ça. di ngeen di ngeen gis voilà très bien. en live nii comme ça ngeen comprendre naka laay réagir. yee saa man maa choisir liggéey bi maa choisir liggéey ak sama jëkkër. donc du coup su ma naree nekk di def jalousie maladive fii damay sonal sama bopp alors euh, du coup euh, dama xam naa ni star la nit ñi dañ koy bëgg pareil pour man aussi donc euh, faw ma bàyyi affaire yi muy jàll daal pas ma yenu ko. ah pour man daal Saint-Valentin gars yi bés la rek bu gars yi jàpp nii li ñu war a dund ci Saint-Valentin pour man ñëpp moom la ñu war a dund quoi chaque jour la ko waaw mais pas pas rouge noir bi nag. di ko deretal moom chaque jour métti <laughs> ma ne di sol deret rek chaque jour. <laughs> Euh, parce que loolu la ñu am envie sol déjà euh, bëgguñu dañoo bëgg déjà différent ak yooyu te aussi ñun ay sénégalaises lañ donc. Euh, c'est vrai que dañuy dund mbëggeel chaque jour que Dieu fait Saint-Valentin bis bu koy marqué la mais on n'est pas obligé aussi roy roy à 100 pour cent 100 pour cent nous on est made in Sénégal on reste made donc dañuy consommer couleur ñu bëgg def rek naturellement yes. noonu du ma joxe conseil dama naan euh, bëgg yàlla moo koy def ci nit ak âge boo mënte am yàlla mun a def si yow bëgg pour nga bëgg keneen mais dafa am loo war def ak loo warta def. Mhm. <laughs> Tu es mon frigo. C'est toi qui rafraîchis mon mon mon cœur. Mon amour. ma ne ko je suis le ndugg ki est dans ton frigo. ndeysaan. tu la puce de mon portable. oh. <laughs> l'essence de ma voiture. oh là là. l'électricité de mes matériels. et l'argent qui est dans mon poche. maa lii neexul. laaj mu lu mu lu neex. ewa. li ma nar ci moom mi. yow loo du jeex. ñi jëm tas suñu lii. xamuñ yéeg yéeg bu mel ni non amul yaay sama chocolat. Cacao pulbi, may su ulala, man may bu suubi mon sa xol ak say xalaat. yaay sama café Touba café bu pur bi. ndeysaan. yaa may segg de. di dëcc def suukar suba su nekk yow de. bëgg naa. sutura yërmande muñ jéggale di jëlale. ku ko si def de yàlla dina dimbali bu baax a baax a baax yooyu daal bu ñu ko fàttee rek ci problème rek ngay def sutura muñ di jégale di jélale ak yërmande bu bëri loolu rek laay wax gars yi bu amee moom dara lu bon mënu ko yàq quoi. Euh, man pour man euh, nit booy confié wu am nga sa yaay am nga sa papa bi nga war a waxal réseaux sociaux comme ni nga ko waxee lu fa nekk balaa moo dañ est-ce que dina dañ sax donc euh, ñi xalaat aussi balaa ñoo def. di euh, di réfléchir balaa ñuy euh, agir euh, te xam ni erreur de jeunesse day am mais toujours nañ rattrapé wu mën nga def erreur dem si réseaux yi def lu la neex mais toogal nga xam ne yow di nga doon mag di nga am njaboot ressaisir waat xam ni loolu dara jaru ko fi. waxtaan waxante dëgg kafoore jaay ko rek <laughs> boo xiifee lekk ba suur boo buggee voyager dem boo kontaanee wane ko.